alhamdulilah ñu ñëw leen seen revue de presse lamb talaatay tay ji la ca gën a fës suñu lamb fësal na ci xëtam wu njëkk ñi nga xam ne seen ni ñooy gaynde yi suñu lamb mu ngi ñëw ci mbër yi nga xam si ni ña ngay wax ca la nga xam si ni mooy ndamu gaynde yi ku ci mel ne Boy Niang 2 ma ngay xam le ne moom ku yërëmoon Sadio Mané la rawatina penalty bi nga xam si ni jotoon na koo raté ci biir match bi ginnaaw ki nga xam si nii a doon mooy ndam Sénégal am moom ay jooy ko fajee moom guy gi daa kontaan bay jooy ki nga xam si nii mooy Lac de Guiers numéro 2 ma nga xam ne ndam nañ ko sante ñi nga xam si nii ñooy kilifa diine yi te bu ma sañoon joueur dem seeti leen jaajëfal leen Balla Gaye 2 suñu làmb bu xamale moom it kenn du moom ndax bi Sénégal amee ndam ci li nga xam si ni mooy stade Wat Sabam sargal na ci ku mel ni Pape Bouba Diop Thiam 12 Gaynde bi bloqué woon na si nii moo di làmb de février bi làmb mu ñu xamal ni promoteur la ma nga jëm ci le 13 février 1 million la teg fa nga xam si ni mooy adresse Senghor waaye fi mu toll nii gis rek mooy réussite totale la ci bëgg ginnaaw loolu suñu làmb mu ñu xamal ne ñi nga xam si ni ñooy acteuru làmb yi nag sonn nañ ne lool ci kan bi ndaxte ñoom doon nañ estati doon nañ ñëw lu ay yére doon nañ jënd ay maillot di sol li nga xam si nii moo di drapeau Sénégal ginnaaw loolu ñu ñëw ci bira seen njiital CNG ginnaaw boobu demee ci face to face Modou di xamal ne bi ndax 32 milliards lañ ci def kon bu ca benn violence am ginnaaw loolu face to face bi waroon am ni démb diggante Dukan Tubaab Buy diggante ak Pape Diouf 2 suñu làmb mu xamal ne dañ ko dàqoon ni démb ndax tertu gaynde

leen jox leen dig daje niki suba incha allah.